ngir gën mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ni moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu la notification. waaw bon sant yàlla tout d'abord mooy remercier suma comité directeur bi nga xam ne moom laa àndal donc parce que benn nit rek mënul def dara donc lépp ci ñoom la jógee donc bala may wax dara ma remercier leen vraiment jàpp nañ ci liggéey bi lii lépp ñoo ko taxawal donc leneen la ci des mooy ki fi jógee léegi muy monsieur le maire.

surtout damay am habitude de ku bi du génn caaroy amul wàcc amul yéeg ku jëlul tey déwén mën ngaa jël te koo fi koo fi wax wala nga kii ko bu subaa bu ngeen doxee yéenay daje kon daal damay ñaan daal di ko lancer appel ci ASC yëpp nañu football lépp si jàmm kenn mooy jël coupe bi ñi si des ñëpp ñu defaruwaat ñu xam ni kenn moo ko war a jël donc loolu daal laay wax di ko di message nag président ASC yi di leen wax ne ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci koñ yi nañu waxtaan nag ak waa koñ bi sur parce que loolu la ñun mënuñu si dara waa koñ bi dañuy ñëw fekk si ñu mais ñoom ñu dëkk ak jeunes yi nekk ci koñ yi nañuy def ay tey débat di waxtaan ak ñoom di conscientiser jeunes yi ba ñu xam ne stade bu ñu fi ñëwee kaf fooree ku nekk ñibbiwaat donc loolu la woon voilà merci tey na nga gisee li nga xam ne moom mooy lancement bu première journée li nga ñëw président Massa. waaw mais salaamaaleykum di profiter de cette occasion di nuyu euh, les chers internautes particulièrement ceux de Thiaroye Gare veux vraiment féliciter le démarrage des activités de Navétane un engouement la présence des jeunes dans les gradés donc ça donne de bon augure que les jeunes vraiment sont présents les quartiers se sont mobilisés pour euh, accompagner leurs essais. Monsieur sommes nous solo rek Monsieur xam nous sommes la L'objectif de Neotard solo de faire xam objectif Navétane donc play Nous ñoo à part loolu ban message ngay jox ay say pour ñu def ko li nga xam moom mooy seen i waaw a mën a dox. mooy comme li ñu wax rek ren y' a y' a un euh, benn changement bi sax mooy deux poules de cinq ou six euh, donc nawetaan bi dina xaw a gudd. donc lu sëpp solo rek mooy comme li ma wax rek nañ ko def dans le fair play caaro xamee wuñ violence donc démarré nañ ko donc niñ ko démarré nii di ñaan yàlla ñu ko ma bisimilah rahmaani rahiim jeexoo si alhamdulilah rabil alamin merci ngir gëna mëna mën jot ay vidéo xibaar abonnel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bëss li nga xam ne moo di cloche bi ngir mëna a jot yooyu les notification